li ma wax man la engage et je ne regrette rien ci li ma waxoon sauf que dinaa def rek rectificatif bu ndaw d'abord ci ay propos Khalifa Sall dafa ni cent mille jaas laa wax waxuma mille cent mille bi dafa bari cent rek laa wax cent téeméer laa wax waxuma cent mille xëy na nag da doon communiquer parce que politicien dañoo xam ne ñuy waxee ak communiquer pour wane ni am na am na ampleur wala bari nanu cent laa wax te it di te dit dañuy dem pour taal ay famille yu jaas moi j'ai dit que Barthélemy Diaz na bàyyi sorte de violence yi muy def parce que violence yooyu man na yóbbee nit ñi musiba fii ay cent mille mbéngeen cent mille paaleen cent mille njaayeen cent mille jóobeen cent mille sàll yooyu am ci réew mi cent mille Touré cent mille John cent mille yooyu ñu am ci réew mais sans Diaz rek mu nu leen accepter ñuy ta jéem a taal réew mi parce que ñoom suñu tàkkoon du am benn significatif par rapport ak population yi ci Sénégal. la guerre comme à la guerre mënuñu permettre un bar toog di wax lu ko neex nit ñi di manquer moom moo violent di manquer Khalifa Sall il a été ministre de la République moom dafa fàtte li ñu ko jàngaloon ci parti socialiste li ko Abdou Diouf jàngaloon ak Ousmane Tanor Dieng xanaa moom war na xam lan mooy un chef d'État Khalifa Sall il a ministre de la République. moom moo waroon a jëkk a arrêté arrêté Barth nii mu ma tontoo tey moom Barth la war a jëkk tontu mais je pense que dafa fàtte les vertus de la république moom Khalifa Sall xam naa ko bu baax nag sama rakk la mais xam naa ko bu baax bu nu defee ni aura bi nu am ci biir Ndakaaru moom la am ci Sénégal moom amul boobu oraa ci pays bi il faut qu'il qu'il arrête un Soham Wardini j'ai été déçu par ses propos parce que moom il a été traumatisée elle a été violentée elle a donc bu mu jéem a wut ay alliés yoo xam ne du ñu allié moom di wax moom elle a été violentée par Yewwi Askan Wi donc elle n'a rien à moom itam man li may wax ragaluma ci dara parce que sénégalais la am fi famille une famille digne nag ñu xam ma bu baax ñoom ñoo violent ñoom ñooy prone violence ba benn association religieuse taxaw di bëgg a signé ay pacte de pacte de non violence taxal ba nu pare ci Bart Ousmane Sonko wax naa ci moom Ousmane Sonko moo tane Bart malgré que prôné ne violence ku la matt nga matt ko ku la yi nga kii ko mais mais dañu dañu dañu yàpp nit ñi wala lan ba ñoom lu leen neex wax propos yu leen neex wax jëmale ci président Macky Sall di institution jëmale ci procureur Bart lu mu def bërki dem téye un commissaire de police de jéppal di ko traité de voleur li tax Khalifa Sall tontuwul woon loolu lu ko gën a violent xam nga Sénégal li ko yàq mooy naafeq gi ñoo bari nan bàyyi affaire naafeq réew mi ñun yëpp ko bokk bu nu taal suñu réew mais naafeq parce que Gaston wax na rek ñu bëgg ko man damaa waxaguma de damaa xose rek dama leen a xosi rek ndax ñoom ñoom déjà ñu ngi ni afole ndax benn xosi te ñu cap am capable di wax lu leen neex di yekk lu leen neex un chef yekk lu leen neex un procureur dafa ne ñoom rek ñoo war a wax ba pare euh, di aspirer pour yor réew mi di aspirer pour yor Ndakaaru mais ñii ku leen mais mais c'est pas possible il faut que ñun tey il faut que ñun ne man nag ñuy wax naafeq buy wax nekk ci Facebook ak yu kenn xamul di wax ay naafeq man yooyu d'ailleurs duma ma sax lire yooyu ça ne même euh, pas du ma ébranlé en aucune façon yooyu mënuma ébranlé mais violence ci ñoom la fekk baaxul mais qu'est-ce que j'ai dit le truc bàyyi ñu violence. mais mais dama non non non ñoom ñoo ni lakk ay nit dama ni li ma wax bu clair nan bàyyi di jéem a taal réew mi surtout Bart tey jaas yi bariwuñ fii mu bëgg a taal réew mi tey su réew mi tàkkoon. su réew mi tàkkoon. su réew mi tàkkoon su jaas yëpp sans jaas yëpp deewee xëy na mil mbéy ngeen mën naa de mille paale mille kande ma nanoo de loolu laa wax waxuma leneen te c'est la réalité